asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tey jii di fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier atum 2020 yemook ñaar fukki fan ci weeru rakkaati gàmm daara Mafatihul Bichri ci jiital sëriñ xaadim Jóob Nahim waaye itam ci kilifteefu sëriñ Moustapha Mbacke ibnu sëriñ Mouhamadan teew nañ fii ci kër sëriñ Abdoulahat Mbacke ngir fas yéene ziyaare ki nga xam ne moo di sëriñ Sidi Mbacke ibnu sëriñ Abdou Ahad ci biir loolu itam bu ñu xëyee bi fukki waxtu jotee mbooleem fu membre nekk daje nañ fii ci Touba ci Daaru Xudoos dox wuti dafa nga xam ne moom moo di kër sëriñ Abdul Ahad Mbacke nekk noonu itam amal nañ fa njàng mu am solo njàng mu yaatu ci kanamu sëriñ bi tàmbale ko ci kuréel yi nga xam ne mooy kuréel tu waaye itam kuréel 1 bu mag bi nga xam ne mooy kuréel daje na ko ak daara Mafaat Bichri fii ci kër Sëriñ Abdul Ahad waaye itam def fa berlo am solo yoo xam ne itam ko ci ñi nga xam ne ñoo doon def njàngum xasida mi ci biir lee itam sëriñ Moustapha Mbacke ibnu sëriñ Mouhamadan yëkkati na fa kàddu yi am solo ci kanamu bi ngir jëtal ziyaarab waa daara Mafaat Bichri yëpp ci biir réew mi ak bitim réew ci biir loolu itam sëriñ bi wane na mbégte mu yaatu ci daje bi nga xam ne daje bi am na ko ba tax mu sàkk juróom benn weer yu jot daara ji teew fii ngir amal fa li nga xam ne moo di njàngum xasida ci biir loolu tam sëriñ Abdul Ahad Mbacke mi nga xam ne moo doon wax ci turu sëriñ bi yëkkati na fa kàddu sant mboolem membre yi ma fàttali yëpp ku teew ak ku teewul ci turu sëriñ bi. ndekki noonu itam bi ñu noppee sëriñ Cheikh Fall mi nga xam ne mooy jëwriñ daara Touba dénk nañ ko suñu micro ngir mu leeral li nga xam ne moo di solos jotaay bi ak mobilisation bi nga xam ne Daaru Touba mobilisé nañ ko ba nga xam ne góor ak jigéen mag ak ndaw kenn desul. والذي dikk di la siyaare si ngir sa jëmm ak jëmmi Sëñ Tuubaa te it di am mbégte mu rëy ci eh, jëm ci yow ndax yitte ji ak yëg gi ak li ñuy def yittewoo gi nga ko yittewoo te it muy sa alal nag di diloo di loo moom nga ne boo ne soxla woon bis bu ne ñu ñu ñu saxoo ko bis bu ne kon nag Mbàkke lii ab siyaare rek la sàkkuwaat ndimbal ak nga sàkku nga nga nga noo ñaanal ba li nga xam ne mbooloo mi da ko yéene liggéeyal sëriñ bi ñu mën ko def nañu ko bëggee ndax li ëpp ay ndaw lañ te ñëpp am nañ yéene ak ko bëgg waaye nag nit faw ñu dimbali ko kon noo noo noo ngi ñaan nga sàkkul nañu ndimbal nga sàkkul na ndimbal ci sëriñ Tuubaa waaw <laughs> alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah Mbacke alhamdulilah Mbacke alhamdulilah Mbacke kon daal yi moom jërul muy gudd jataay bi siyaara la ak nemmu ko si ak it tënku ci ndigal rek waaw jë jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke waaw waaye li ñu defoon bi sa sangoo tedd hmm. damaa waxoon ne ma suñu tubaab boo bokkee ci moom. Hmm. bu la bëggee dimbali. Hmm. da lay xamal ne la addee war na la. waaw moo ko wax ci lii mën yëpp. ne fi ne lii fi hmm. maa ngi koy wax léegi man amoon ndigalul nga xam ne bu ñu toogee benn bis rek am benn kuréel bu ñëw ci kees gi nga xam ne du tàggoo du du yëglu eh, gi gis la sax du maanaam du koy teewoo. <laughs> fi mbooloo Mafatihul Bisri ci njiital sëñ Moustapha Mbacke ak sëñ Xaadim Diop sëriñ baa ngi leen di delloo ab nuyoo bu kawe nee xolam sedd na guyu tànk yi ngeen jug ñëw fi ngir jëm ak jëmmi sëriñ bi rëy na fi moom lool xolam sedd na lool Sëriñ Tuubaa mi tax ngeen di ko def gis na lépp yàlla na leen téyel boppam kenn ku ci nekk ak bëggam biir ak bitti mu defal leen ko jërë ngeen jëf neen daal kàddu yi moom mu gudd ak mu gàdd sant na leen gërëm na leen. waaw. waaw. ci daal jëm sëñ bi xasaay di fi jàpp ci xasaay yi waaw bëgg àgg rek baax waaw da ngeen ko de ca jërë ngeen jëf yal na leen sëñ Tuubaa gën dimbale jërë ngeen jëf amiin barke sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf amiin Mbacke nga yàgg fi lool nga yàgg fi lool Mbacke أذكر الله asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi kon noo ko gisandoo ziar bi noonu la demee Daara Mafaatihul Bichri eh, ñëw na fii ci kër sëñ Abdoul Ahad Mbacke fekk fii sëriñ Sidi mbakke mi nga xam ne moom mooy xalifa sëriñ Abdoul Ahad ziare ko ziare bu am solo kon sëñ Cheikh Fall mi nga mooy jëwriñ Daara Mafaatihul dañ koy jox rek su ko defee mu wax ñu li xam ne mooy sababu ziar bi ak Daara Mafaatihul Bichri eh, taxawaay yi nga xam ne mi ngi koy taxawee ci wàllum ziar. ak itam euh, suñu diggante ak Serigne Sidi Mbacke mi nga xam ne itam euh, yàgg nañ ko ziare ji ba tax itam am ay kaddu yoo xamante ni dénk nañ ko dénk na ko Daara ma Fatim Bichri kon dañuy jox sëñ Cheikh Fall mi xam ne mooy jëriñ Touba mu indi ci ay leer bisimilah. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jërëjëf Serigne Mamor ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare di la delloo am nuyoo bu baax a baax di rafetlu tey jii nga xam ne. waa Daara Mafatihul Bichri ci njiital Serigne Khadim Diop Nahim mi nga xam ne moom moo jiite liggéeyu Daara Mafatihul bisiri ñu ñëw tey fii nag ngir baaxoo def loo xam ne képp ko xam Daara Mafatihul Bichri xam nga leen ci muy fépp foo xam ne njabootug Serigne Touba ji ña fa ñuy baaxoo di fa dem ngir di sàkku ngërëm ak ndimbal loo xam ne Serigne bi danañ ko defal ngir liggéey bii xam ne moom lañu ñu dénk daara ji di dox ñu am ci ngërëmam moom Serigne bi. ak taw feexam tey jii nag ñu ñëw ci koo xam ne kenn la ci ñun kenn la ci daara ma faatiwul bisiri muy Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad di ko ñaanal suñu boroom yàggal fi lool te ànd ak xam ne daara ji dañoo jàpp di ko ziyaare at mu jot mu ne biñ ko njëkkee def mu saafanteeg mbooloo mi ñaanal leen gërëm leen ñaareel ba bañ ko defee mu daan ne euh, at mi kat jàpp na ne dana xaw a yàgg ci moom menn benn siyaar bi ci at mi mu ne nañ ko def euh, at mu jot mu ne ñu fexe ba def ko ci ñaari yoon muy par juróom par juróom benn weer yu ne waa daare ji àndandoo ñëw siyaar si Serigne Sidi moom suñu Abdou laat ba tey ji nekkoon siyaar bi nga xam ne moom mooy siyaaru juróom benn weer yi ñu àndandoo ko daara yëpp nag ci turu Serigne Khadim Diop mi nga xam ne moom moo jiite liggéey bi mu soññu daara Mafatul Bichri nekk ci réew mi ak bitim réew ñëpp ñun ngir ñu àndandoo ñëw ngir taxaw bis bi loolu nag sëñ Maam dañ ciy sant sëriñ Tuubaa bu baax ndax taxawaay bu rafet bii mbooleem fépp membre Daaru Muxaddamatul Xidma di nekk ñi ci mën a teew ñi ci ëpp teew nañ ñi ci teewu tamit kenn ku ne fa nekk yaa ngi ànd ak ñun liggéey bi ci jamono ji ñu nekk muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw kon ñi ngi sant ñëpp di wax ne lépp loo xam ne jëlee nañ ko fi yàlla na ko Serigne Touba nangu defal ñu ko taw tawféex ak i xéewal ca pàcc ko ci biir daare ji di sant tamit membre Muxaddamatul Xidma yëpp ci turu Serigne Xayim Diop jëwriñ Nahim nga xam ne moom moo war na jël kàddu yi xanaa dañ koo jëlloo rek ñu ngi koy sant ci turu daara ji yëpp ndax gis na ne heure bu daara ji soxlaa bépp membre foo mën a nekk danga dagg sa yitte bàyyi la nga doon def lu mu mën a doon ñëw wuy si daara ji nit ñi jóge nañ Kaolack nit ñi jóge nañ Dakar nit ñi jóge nañ Thiès nit ñi jóge nañ fu ne nit jóge nañ fi ñëw ci ziar bi tey jii ca loolu ndigalul daara ji rek moo ko waral kon jëwriñ nee na mi ngi sant membre yëpp di leen gërëm bu baax ñi ñëw ak ñi ñëwut ñëpp mi ngi leen sant di leen gërëm ñi ñëw xéewal liñ ci am yàlla nañ ko bokk ñi ñëwul ñi ñëw ñëpp ci sant wu baax a baax di ñaan suñu borom ñu ba ziar bi nga xam ne la ñu def na muy ziar bu mag bi xam ne suñu tëbaskee pare moom lañ koy def ñu ngi ci sant bu baax a baax a baax di jégg lu baax leen sant bu baax yéen sëriñ Maam seen taxawaay bu am solo boo xam ne yéen a koy taxaw ci daara ji sant daal daa ta weesu sant waaye jëwriñ nee na sant nañ ñëpp daara yëpp rek ndax su ma faa di bisee teewee amatu Touba amul Ndakaaru amatu section lépp rek Mafaatihul Bichri kon duñ santee Mafaatihul Bichri sant nañ daara yëpp jërëjëf Serigne Mamour ci kàddu yi ñu sant baax di gërëm bu baax wasalaamaaleykum